wër baa ngi wëyandi ba tey ngir gis kii di Diary Sow famiyam ak ay jege ñaaleem amaguñu ay nouvellem am depuis ñeenti fan ci weeru janvier bi ñu nekk di bës bu vacances Noël yi jeexee jaari Sow di élève boo gën a xarañ ci Sénégal ci atub 2018 ak 2019 étudiante la en deuxième année de classe préparatoire scientifique ca lycée Louis le Grand bu Paris nekk ca réewum France ajjuma bi ñu génn sax wàcceeloon nañu ko kaamil ca seen kër famille nekk ca mali Malicounda bu Mbour ngir ñaanal ko yàlla mu aar ko sàmm ko ba ñu ko gisaat ci jàmm kuréel gi nga xamante ne nii moo ëmb étudiant sénégalais yu nekk ca France daal di nañuy xëy tey ci dibéer bi fukki fan ci weeru janvier atum 2021 di séddale ay flyers ngir gis étudiante bi di jaari sow ak ñaareelu vague coronavirus bi ca France yëpp teewul ressortissant sénégalais yëpp a génn ak respecté mesure barrières yi def lépp lu ñu xalaat ngir jaari sow mu nekk ñaari yoon élève boo gën a xarañ ci Sénégal feeñ ci ni mu gën a gaawee bu ñu sukkandikoo ci ku jiite kuréelu sénégalais yooyee nekk ca réewum France bés bu njëkk bi réussir na ci lu si ay téeméeri doomi aadama mobilisé wu nga xamante ne ni bokk na si sax ñoo xam ne duñu ay sénégalais di nag li nga xamante ne ni day firndeel ne gis kii di Diary Sow soxal na ñeneen ñu dul ay sénégalais maanaam mbir mi léegi c'est international gi jëy ak ay nataangoom fas yéene bàyyi mu sedd benn yoon ndaxte nee nañu bu weesoo mobilisation bu ñu amal tey ci dibeer bi danañu amal benn comité de suivi ngir xalaat ci yeneen i jéego ya ñu fas yéene joxaat ngir rek gis kii di jaari Sow donte sax message yaa ngi gën di yokk gannaaw ba njàkk njàkkare gi di gën di rëy ay médias français jëlaat nañu xibaar bi euh, police ak service compétent français yi yëgal nañu leen ko ba ñu ngi si béy seen waar euh, bu ñu sukkandikoo ci parrain wu jaari sow bii di Serigne mbay Thiam allons chercher la réussite. aimerait vraiment à ce que les choses se terminent aujourd'hui et que la fille soit retrouvée. Mais s'il y a une autre action à faire, elle sera plus large et touchera toute la France, Inch'Allah. Donc nous vous remercions tous de votre présence et prions pour le retrouver Yari le plus rapidement possible. s'il on va pas laisser urge de quitter nos bureaux pour venir, on va le faire, Inch'Allah.

dénoncé faale wu ñu jéem a def nga xam ne moo ci war